parti de yi bare nañu waaye amu ci benn bu niroog PDS <laughs> PDS ni ñu ko defaree ni ñu ko tëggee ba mu taxaw benn la professeur espagnol nit ku européen mon mu euh, je dafa am mm, lu ma dégg moom jëm vérifier parce que damay bind je suis écrivain te je dafa ma intéressé

mais diggante fi ak fële kenn du fi taxaw mais dafa dul suñu conception c'est pas notre conception puisque mën nanoo jaar ci ay charge yoo xam ni ñëpp danañ ko nangu ba lu ñu taxawal ëllëg ñëpp nangu ko c'est pas la peine ñuy indi loo xam ne lii day indi xuloo je disais <laughs> je connaissais Senghor mieux que ses propres partisans nous avons dañu nekkul école nous politique vieux Senghor, vieux Senghor Nous Nous, Le nouveau groupe, chaque citoyen ou chaque militant soit un vrai citoyen. Rien compris. Les alliances avec qui et pourquoi Alliance il est parti nous de la réglementation à la base c'est que les citoyens comprennent ce qu'ils sont en train de faire Je leen féliciter d'abord pour fonctionner